nekkoon na ko siiw looloo ci série yi rawatina nag plateau télé yi mu daan def di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare àjjana yi firdawsi ba tey ñu des ci personnalité publique yi ginnaaw ki nga xam ni moo di Nabou Dash arrêté nañ ko ba placé ko à garde à vue lu ñu koy toppee nag mooy dañoo jàpp ni rek que wérul daal te xelam neexul dafa war a dem faju ji ñu dem ci wàllum football fekk fa joueur sénégalais bi di bambaje mu nekkoon attaque ca Marseille ginnaaw après transfert bu mu waroon amal foofee ci Nice te mujjul antu gannaaw ab visite médicale bu mu rate mbir bu yees jib na foofee ca Tiwaawan gannaaw ñaar fukk ak juróom benn ci weeru mai bu ñu génn fukk ak benn liir ñoo ñàkk seen bakkan foofee ca hôpital Abdoul Aziz si bu Tiwaawan ñenn ci ñoom ñooñu nag ñu ñu jàppoon ngir njàkk saytu xale yooye laata accident boobe di am jot nañu génn ginnaaw ba leen police jàppee ngir sàggante loo xam ni ñoo ngi koy nemmeeku fii si réew Sénégal gannaaw ab jànk buy xamle rek que kii di patron wam daf ko daal di violé ba pare génn daal di daw réew mi. daal koy jox ñeenti téeméer ndaw soosee nag dafa daal di dem fi nga xam ne moo di tës pour fësal li ñu mel coowal milliard foofee ca poste finance gannaaw Cheikh Aliou Souané mi police tegoon loxo ki la di Cheikh Seck mayore Diouf ak kii di Mame Demba Ndiaye police teg na leen loxo ñoom nag li ñu leen di toppee mooy détournement xaalis foofee ca poste finance Gabriella Kane ñu gën koo xam ci féministe bu mag bi nag daal dina yóbbu ci yoon ki nga xam ni moo di ab patron wam moom nag li mu koy toppee moo di toog bi mu toog lu tollook ci juróom benn weer te fayu ko li nga xam ne moo di salaire am beneen bi moo di limu koy toppee mooy ab dàq bu mu ko bëgg a dàq te tegu ko si yoon kawteef foofee ca Mbàkke gannaaw ab cant bu ñu fa amaloon ab apprenti menuisier nag la benn dawalkatu sareer dal di faat gannaaw ba mu naanee ba fu muy nekk daal di koy dapp ci yoon ba muy ñibbi daal di koy def jëf ji ni mel xibaar yi nag dinañ ko ndar keppee ak lu doy waar mu nekk ñenn ci ñi nga xam ni dañuy dawal ambulance yi di nga xam ni moo di faral di yóbbu nit ñi nga xam ni dañu daal di feebar ñoo jël li nga xam ni ñenn ci ñoom jël li nga xam ni moo di drogue yi nga xam ni dañu koy tere di ko awal di ci biir oto boobu ngir di ko mën a dem di ko jox nit ñu koy jëfandikoo ki internetu seen acti tv tey nag li nañ leen indiloon ci li gën fës ci xibaar yi di leen wax ni rek dig waaye laata leen di abonné te bu leen di fàtte di bës cloche bi pour di am suñu ay notification à la prochaine ci yeneen xibaar fii seen chaîne SENactu TV